أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ألف بين قلوب سبعة أعداد فأصبحوا بنعمته إخوانا ونفعنا في صدورهم لعلهم فضلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا وفي الآخرة رفقاء وخلانا والصلاة والسلام على محمد المقبل وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sunu waxtaan tey kon ñu ngi jëm ci fàttali bennoo ak mbokkoo bi nga xam ne moo war ci diggante jullit bu ne ak moroom jullit ba ndax lislaam dafa seet lool ci luy boole jullit ñi ba tax na boole ñu alxuraan da nga fekk aay yu bari yoo xam ne day wax ci war gu benn boobu war a am ci biir jullit ñi naka noonu xadis leen bi alayhi salaatu wasalaam ba ci sax ibaadaat yi nga xam ne ak ci lenn ci ibaadaat yi muy julli muy woor muy asaka wala aj màkka lu ci ne lislaam yi ngi ci wane waru bennoo ak dimbalante ci lépp ci lépp lu baax ci lépp ngir xel yi mën a dund ci kaw suuf dund bu neex bu ànd ak jàmm ba mën a wóor liggéey bi nga xam ne moom la leen suñu borom tabaraka wa taala sant ñu war koo liggéey ci kaw suuf te keroog ba mu waxee ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ngir ñu mën a génn nit ñi ci lëndëm yi jëme leen ci ak leer te mooy ñu génn leen ci lëndëmi kéefar yi àbbal leen ci leeru ngëm yàlla génne leen ci lëndëmi mooy yàlla yi womat leen ci leeru topp yàlla génne leen ci lëndëmi réer yi gindi leen ci leeru xam-xam ak jëfe xam-xam génne leen ci lëndëmi jikkoy ñaaw yi bañ mën a bànneex ci makaarim lax-laax li nga xam ne moo taxoon ñu ñu yónni yónni bi alayhi salaatu wa salaam loolu lépp nag lay tax mën a am day fekk ak bennoo ak dundal ruuxu mbokkoo ci diine am ba noppi ñu door a mën a amal liggéey boobu nga xam ne moom la suñu borom tabaaraka wa taala santaale ci seen kaw lool mu mel ni kon bu ñu waxee baatu bennoo xel yépp danañ dem ci jëmu ji tedd joo xam ne ak njàmbaaram ak liggéeyam ci diine dañ na fépp ngir ba ñëpp xam ko muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma ndax ku ne xam na ne bokk na ci li ko gënoon a ñor mooy bennoog xel yi ci ay waxam ak jëfam ba mel ni sax liggéey boobu rek mooy li ko indi woon ci kaw suuf ndax jikko dana tax ci nit ba mel na ab seex ci moom nga xam ne foo tudd jikko ji saxel dem saxel na yar ci jëmm ji foo tudd jëmm ji tamit saxel na yar ci jikko ji kon bëgg gi mu bëggoon moom sëriñ Seex benn xeet yi noonu la meloon ci moom ba foo tudde baatu al ijtihaad muy benn saxel dem ci sëriñ Seex foo tuddee sëriñ Seex saxel dem ci baatu bennoo ak mboolem jikko yi ko suñu borom joxoon jëpp moo taxit liggéeyal na lislaam kon ci wàllum bennoo ak boole xol yi liggéey bu rëy boo xam ne kenn niruwu ko ci gannaaw nag dañoo dëgmal bisam boo xam ne daf ko ci fàttaliku ci xeeti sant yàlla ak xeeti ñaan ak waxtaane lenn ci ay jikkoom dana yellu kon ci sunu waxtaanu tey nu fàttali ci ak ndénkaan boo xam ne defoon na ko ci wàllu bennoo bu war a am ci biir jullit ñi muy ndénkaan boo xam ne bu siiw la boo xam ne yàgg ngeen koo dégg ñu yàgg ko joxtaane wante fàttali dafa mën ko ñàkk ngir rek mu yeesalaat ak dund ci yenn xol yi ba jullit bu ne yëg bu baax ni mu doon ak yenn wàll ci moroom jullitam ba mu xam ne kenn ci ñoom mën ko ñàkk ka def mu wax kon moom sëriñ bi wax a'uudu billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim yéen mbokk yi yàlla na leen yàlla loolu lay dëgëral ci lu baax na ngeen xam ne yoonu lislaam yëpp ak i tegginam mi ngi taxaw ci kaw jàppe kenn ku ne mu mel ne ak cër mu tax ci jëmmi mbooloo mi ñu tudde xeet yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba tax na lu jóg ngir xeet bi kenn ku ne dana la jot lay wàll waaye nit mënta beru ba am dara wala dina di jàppe ko muy dara moo tax bu wax seen borom bi jëm ci xeet yi yitteem jëpp mooy lu saxal bennoo googu ndax kàddu moom yàlla jëmaliwu ko ci kenn wala ñaar lépp lu muy digle wala mu di ko tere da koy adressé ci turu mbooloo mi yaa ayyuha alladina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu xayra la'allakum tuflihun mu ne yéen mboolem ñi gëm yàlla na ngeen maas ci di julli na ngeen maas ci jàmm seen borom maas leen ci def lu baax kon da ngeen texe mu ne kon waxin bi moo tax ak jullit su taxawee di déyaale ak boromam ci biirum julli wala muy ñaan lu mu wax ci làmmiñam te du ko fas ci xolam bu nuru kenn ku beru di jaamu boromam wala ku beetu ku di ñaanal boppam li muy nuru tey mooy ku bokk ci bi ku bokk ci mbooloo mu ànd mu ànd mu jàppan ba ku tee wax waxaaleel sa morom moo tax mu ni booy jàng saa bi da ngay wax ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim yow képp yow sunu borom la yow la ñuy jaam yow képp yow sunu borom la ñuy sàkku ndimbal noo ngi lay ñaan nga teg ñu ci yoon bu jub bi nga xam ne mooy tax egg ànd ak mujj mu ne nag boo seetee da nga xam ne nii rek la jaam bi war a wax ndax yàlla bindum ñu ngi ngir ñuy xaajaloo ak a juyoo ndax genn diin la leen sàkk la leen tëralal muy lislaam wàcc yonente yi ñuy tegaloo ku ñëw ba dem sa morom dikk te lépp rek ngir ñu wommat nit ñi ci benn nag jaarale leen ci wenn yoon jëmale leen ci jëmm joo ci jëmm jëmm joo xam ne jurul kenn da leen juru ko te mooy allah subhanahu wa taala mu ne nag booba la suñu borom araamaloon ci mbindeef bi ñuy xar diine ji di wax diine diw ak diine diw ndax diine moom jenn rek la muy lislaam te dees ko xaar inna diina inda llahi lislaam mu ne te booba tamit la suñu borom araamaloon ak teqalikoo ci kaw diine mu ne waaye tànneet moo fàttaloo bi ñu dénkaan suñu borom bu tedd bi ci wàllu ànd nekk benn ba tax ñu séddalikoo teqalikoo def ay kuréel mu ne nag suñu borom leeralal nit ñi ni leen topp bànneex mooy di teqal nit ñi tasaare leen wante lu mel ni wuute wuute ak dégg ak wuute xalaat loolu moom lu fi yàgg la moo tax mu ne ba nga xamee ne yàqalikoo booloo mi ak seen réeroo day yàq dina gi di yàqaale ak bi nit ñi moo war lislaam kon jàppe luy génn nit ci lislaam jàppe luy génn nit ci lislaam wala asubillah moo tax moo ci taaru la xam ne inna alladina farraqu dinahum wa kaanu shian lasta minhum fi cheyin innama amruhumu ila llahi summa yunabbi'uhum bima kaanu yafaalun mu ne ñi nga xam ne tàggale nañu seen diine kenn ku ne beru di wedd di weddi moroomam def ay kuréel yow yonente bi jotewul ak ñoom dara bàyyi seen mbir loxoy yàlla xalfit na leen a yee te lañu doon def te doon ko jëfe lu bokku la bu ko yàlla santaane mu ne lii la yàlla wattandikoloo wattandikoloo ci nit ñi ñuy juyoo ci diine ji ak tàggalikoo ci dégg ni day def ay kuréel di ŋaayoo comme ni ko ñu jiitu woon daan defe moo tax mu wax ne wala takunu kalladina tafarraqu wa ixtalafu min baadi ma jaahum bayinat wa ulaika lahum azabun azim mu ne yéen jullit ñi bu leen def ni ña nga xam ne dañoo tàggaloo seen diine jiwoo ci seen i déggin gannaaw bu ne bu leen yàlla suñu borom leeralalee la ñu war a ànd di ko def ak la ñu war a ànd bàyyi ko ndax ñooñu kat mbugal mu rëy ñu ngi leen di xaar ëllëg wala xayaatu billah mu ne te bokk na ci yi gën a leer yi lislaam di xamal ñi ko topp mooy dëppale xol yi ak yëg-yëg yi def jubluwaay ak yoon yi ñu nekk leen ndax fi ko amul ci nit jullit ñi seenu man koo nekk benn seenu kàddu di génn loolu rek moo mën a doon keno li gën a dëgër ngir teye xeet lislaam yi ba mu mën a def liggéey di ko suñu borom sant ci stabilité bi ba mu daj fépp mu ne ndax su fekkee baatu tawxiid bi laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy bunt bi njëkk ci àddee ci lislaam kon def kàddu bi muy génn mooy mën a tax nga sax ci lislaam ànd ak sa lislaam mooy mën a tax ba tey ñu mën laa war lu ne soo dajee sa borom ëllëg yomal ci am xar kana mu leer naa ñu ngay daje moom ak gis ñu nam mu ne ndax jëf mën naa doon jenn ci niñ ko santaane ak melokaan wiñ ko taamoo tëw ci ay wàllu ak sànte ci kaw su ko jëf ci defee moom rek wala mu def koo ànd ak mbooloo mi ci misaal julli mbooloo ak benn julli kenn ñeent fukki daraja lu moo tax kon lislaam di bañ ci jullit muy weeru ak boppam di wéy ci xalaatu boppam di mer di ber maslaam boppam ndax yi mooy génn nit ci mbooloo te lislaam ku génn ci mbooloo mu génn nga ci wàllu yaa billaah mu ne lii juddoo ci ak deru ak tàggoog mbooloo mi moo waral yonent bi salaa sallam saa yu saa di tukki wala muy ñu gis ci ak tuuti day dénk mbooloo mu ñu ànd mànkoo nekk benn mu ne ku ñu wax Saad ibn Musayyab wax na ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni seytaane ci seen ngir yàq ci kenn wala ñaar la koy jëme wante fu ñu mate fu ñu mate ñett jëm kaw te la leen boole ñu dëgg ci yàlla def dootu jëme ji seen ci ñoom ndax boobaa yël naa dara moo tax alxuraan di wax ni inna adaati lislaam alayhi sultaan sama jaam ñi nga xam ne dañoo mànkoo boole seen bopp mu nekk benn nekk ci li ma digle di bàyyi li ma tere yow seytaane amoo ci ñoom genn kàttan koy mën a yàqal illa ne sabaatin ne rawal yi wante ku ak réew jàpp ba tax mu wàcc sama yoon dem daru ànd moom rek ñooñu moom may naa la kàtt ci ñoom loo man ci ñoom defal mu ne kon lii ma waral mbooloo ba su fekkee bëgg mënu leen a boole kon neen ak caaxaan moo leen di xaajal di tasaaroo mu ne ba tey mbooloo mooy jaamu yàlla mënu leen a def ñu nekk benn kon jaamu seytaane moo leen di jàqale mu ne kon ànd nekk benn mooy maye doole mooy maye kàttan moo tax suñu borom cere ci xare Badar lim njëkk dénk jullit ñi ngir ñu bañ a seen ngir ñu bañ a yéefar yi mooy ñu maase ci topp yàlla topp yonente bi te bañ a xëccoo bañ a réeroo bañ a juyoo ndax su ngeen ko defee kat seen doole ak seen kàttan dal leen ci ak neen te kon du ngeen am da ngeen bëgg balaa nga bi la mu ne kon xam nga ne ci aaya boobu ni nekk benn bi jëpp jëpp bi jëm ci yàlla mooy yoonu am la nga bëgg mooy yoonu bañ a tey noonu mu ne ndax lislaam dafa xer lool ci loo xam ne day musal ñu ko topp ak lu leen di sàmm moo tax muy digal jurit bu ne mu nekk benn ak morom bi tam ngir ñu mën a génne xeet yi ci ñëpp musiba moo xam ne tàgg nañ te juyoo ak yéroo waral mu ne yërmande suñu borom ci kaw mbooloo mi la koy wàcce ku génn sa sa bopp ci mbooloo mi nag yaa génn sa bopp ci yërmande suñu borom wàcce alhamdulilah te kon boobaa yaa ngi tegu ci yoon wu jëm ci këru texee bi mu ne ndax lislaam comme bi ngeen ko xamee génne booloo la diine yi ànd nekk benn la wante diine yi deru ak bedd mu limu ñu ànd nekk benn di gën a bare ni la barke suñu borom di gën a bare di gën a tuuroo ci seen kaw mu ne kon yéen mbokk julli bi maa ngi leen di ñaan ngeen warmaal woofu diine yi ci gépp wàll ndax warmaal boobu mooy fondement wu bokkoo bu dëgër bi nga xam ne mooy dëppale xol yi ba def leen ñu nekk benn ak lu ñu wutu wutu ay barab ak i jamono ñu doon lenn lu tax lu dëgër loo xam ne waaye tollu ci leen seen suñ leen màngal mu ne nag bokkul lislaam boobu ma leen di wax mooy ak yëg ak yërmande ak sopp ci ab jullit bu ne di ëmbal moroomam ba mel ne suñ dund mi ngi dund ci barke moroom ji itam ak seen dimbal ak dundam ci nit ak man-manam nit mbokk jullitam la fi nekkal ñoo ko moom ñu mu leen moom ba dañuy mel ni genn ruu bu nekk ci ay yaram yu bari comme ni ko sallallahu alayhi wa sallam misaale mu ne misaalu jullit ñi ci seenu soppante ak seeni yërmande seeni yërmande ñu ngi mel ni wenn yaram su ci benn cër woppee te yëpp yëgandoo benn cër du nelaw benn cër du dal mu ne yéen tam sallallahu alayhi wa sallam wax na ni war war la ci yow ci sa mbokku jullit mu ne nga bañ dara lu koy lor dal ko su ko dara jotee loo xam ne loroo na ca wala metti teg ko ca nga ànd ak moom naqar wa ak lor ja metti lu ko ko ak moom te jéem a gëstu nag la ko dal ba xam fu mu bàyyi koo nga fajal ko ko mu wax ba tey ñun sëñ Sénégal wax na ni jullit bu ne jullitay mbokkam bu mu ko tooñ bu mu ko seetaan mu wax ne ku nekkal sa mbokku jullit ci aajoom yàlla suñu borom nekkal ak say aajo mu wax ba tey ni ku dindi sa mbokku jullit njàqare suñu borom dindi la njàqare ci njàqare bi tey koo xam ne dindi siraat sa mbokku jullit suñu borom dindi siraat la ci yomal xiyaam kon nag ñu taxal ko benn yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh